gars yi euh, yenn saay ci biir waxtaan bi dañuy dañuy dañuy dañuy waxtaan am tuuti yu ñu fàtte euh, ngeen jéggal ma rek xam naa bi vidéo bi peut-être euh, cinq minutes lay durer rek mais dinañ ci pare ma tegalaa leen aussi beneen vidéo boo xam ne maa ngi ko fi yor bu important la bu ma bëggoon aussi ngeen dégg ko mais dix minutes ten minutes li important mooy <clears throat> balaa may teg vidéo bi Euh, avec Macky Sall il am a tout rek que je dama ko les partager sénégalais parce qu'on a vécu le temps de Senghor on a vécu le temps de Mamadou Dia on a vécu le temps de Abdou Diouf on a vécu le temps de Abdoulaye mais euh, et maintenant le temps de Macky Sall mais je veux que les Sénégalais sachent qu'il y a une petite différence ici euh, Abdoulaye Wade de na lu avocat maître quoi, quoi, quoi, et peut-être euh, un businessman qui a eu son propre succès. Euh, de la même manière, euh, Abdou Diouf Djangana, euh, Demna politique whatever whatever whatever Senghor de la même manière les Français l'ont bien entraîné et mené au Sénégal mais la différence est que Macky Sall a passé 55 ans ou 52 ans de sa vie au Sénégal bo xamne ne la jangé Senegal la defee léppam sénégalais daf leen jàng biti jàng leen bir c'est un ingénieur en sénégalo maanaam sénégalogie euh, déglu leen Macky Sall c'est un ingénieur en sénégalogie donc euh, buñu euh, ingénieur en sénégalogie dafa xam sénégalais donc Macky Sall dafa xam sénégalais Tant le lâche il a pris son temps à nous étudier dans les têtes dans les maisons dans les cœurs dans les dans les appartements partout il a pris son temps à étudier les Sénégalais et il utilise cette, étude pour nous massacrer donc il faut Sénégalais les Sénégalais également, vidéo euh, merci à euh, Léon Mboup d'abord Baladara. Euh, donc euh, voilà mais donne donna vidéo bi ngeen déglu ko ngeen ma rek vidéo bi voilà donc euh, je pense que on s'est compris mais comme ni ma donnez-moi une seconde ma tégal la vidéo bi ngeen

duñ ci weer ñu jàpp ko. dama nga waxoon man maa ko lekkate jiir boobu sax du ko am parce que assemblée nationale dañuy def benn enquête ci problème mu vingt quatorze milliards. kon nag foofu moom amul intérêt ji dem di participer ci élection ma ci moo koy parce que bëggu maa ci kër yi rek mu dem mu dem leen ñëw leen ngeen ànd ak man ci programme bi nga xam ne moom laa proposé Sénégalais yi ñuy def ay manifestation ba Macky Sall dem Macky Sall nag foog mu dem Macky Macky Macky nag moom laa bëgg a waxtaanal Macky xam nga ni lii ngay defar du élection na nga dellu gannaaw bul def élection yi nga rencontré opposition ñu def code électoral bu bees dem élection waaye lii ngay def yaa ma gën a xam ni du élection. xam nga mes frères et sœurs lii. Euh, comme ni ma koy euh, il faut savoir que il faut faire beaucoup attention Macky Sall il est prêt à faire beaucoup de mauvaises choses au Sénégal Boulen Fatene, c'est un parmi nous qui nous connaît très bien qui est né au Sénégal et éduqué au Sénégal a été dans les écoles sénégalaises et a atteint les écoles sénégalaises et connaît les Sénégalais a atteint les les les les dem na ci penc yi ci groupage yi dem na ci waxtaanukaay yi loolu rek laa amoon loo xam ne moom ci bëgg yok bala may dem jaa jëf on se donne rendez-vous demain